digg ak sëriñ beeti yow bu muy ñàkk mbaa am jógal nuy ji ko bu la dox sa digg ak sëriñ beeti yow bu muy dëkk mbaa gan jógal fekki ko bu lëf dox sa digg ak sëriñ déeti yow bu muy ndaw bu muy mag demal diglu ko bu lëf dox sa digg ak sëriñ déeti yow bu muy kenn mbaa lëf demal santi ko te luy dox sa digg ak sëriñ bee di ay lu far boole leenay ngërëm dégg ko sa digg ak sëriñ bee di ndox ak dugub lu fuy bëggatee dox faral musulu ko sëriñ bee di gaalu boroomub aras la cay dem ak ay ñëw ku xam sopp ko bu dee dem ca yàlla ak ñëw nag yawit nga war koo joxus lëf ak ay nemmiku ku dul dem ca péeyu boroomu aras ni ràpp ak ka cay dem asal war na ko lu dul dem ci ban baaka ñëw tey fexe amus lëf ba dellooti dum xel ba ko te day dem ak ay ñëw na ngay dem di ñëw mu def sang ngay ab laram topp ko na ngay dem ci yàlla ka ñëw bootalee ka cay dem akay ñëw nga dim nuy ji ko nuy tawat fegal nuy tawat te dolleeti nuy yiw te may nun nawet sarax may feree kiy dërëm ak ngërëm jullit laate doo gantu yow ab jullit dama bëgg jóg man liggéey yàlla ren bu wér dolli maw nit balaa ruuja jot li yonnen bi ak yàlla yor yaa ko yor fayal ay fay bor yi may nuy mébét doxal sun digg ak kudul ab jullit ba kenn dootu soow ak kudul ab jullit te may nu wér ak dund akub dund nag ba dee fulle bee kay sabab loo ko wut jógal nag te tijjil nu buntub ngërëm te tëj wunti lor faw yow yaa rafet te mboolem murit yi fajal seeni lor te faj seeni aajo te may leenu nit ku dul yow du faj lor ku do faj aajo it ba moo tax mayal képp nit may gu mat ku dul yow du faj lor du faj aajo it ba moo tax mayal képp nit may gu mat sëriñ saa ngi lay woo murit yaa ngi lay woo wuyul gaa yi lay woo te may leeni gët te mboolem ku lay woo ndaxam booya boo ndabam dal di rembat asal yaa fi sut fabal lépp ndab raxas duy te far tawat faw tey jiite feng nag tawat fabal barke jébbal nu faw ak ngërëm te mboolem lu nuy bay na jub nangu lool bu am cee bu dey bu maral am fi nun bëlëf gàntu nun may nu xar baaxi tool ku bay lëf lu bon bon na am jópp ren ku bay jópp gi jal ku bañ bay di xool fegal ay bu buuran fasoo jëm ci nun mu jëm àll mboolem lu nuy bañ nga suul fegal ay wu buuran fasoo jëm ci nun mu jëm àll mboolem lu nuy bañ nga suul lu am nag na seddit sunu xol faral raxas fopp moolal mu yow daala mool te foo seeru markeb ayag lor faral farum mbéggu déeful ji sas lëf lu ñuul te markee li mbég faw ak i cant nag ci nun yaa nu may jàmm yaa mat di yool lu bon yaa ko fekk yaa nu féqal njariñ fasoowoo lu bon ñëw fasoowoo nu niil fasoowoo nu jàmbat fasoowoo nu mer te yow yaa nu booloo ki mbooloo ki bool fasoo woonu jàmbat fasoo woonu mer te yow yaanu boole ki mbooloo ki bool fasoo woo ci nun lëf lu dul mbég mu sax ba fir dëw si yaa màgg loo nuy fasool asal yaanu tee ruur akay def lu bon te yaatee ñu ruural nu yaa nuy xulool dangay sàmm boo xam ni bii sëgganoo na ngay dund yow mii te nangul nu lool xarit bul fexe am ku ñàkkas ayib fexe am lu bindee fulum ndof la sax ku ñàkkus ayib doo ko am doo ko gis te kat doo ko déggit gëmal lii ma wax te bul wut ku lay def ni boppam bu wér asal doo ko gis mukk lii duy larax te bul wut ku dul gis ci yow as ayib te bul wut ku dul wax ci yow wax su nax sañuñ boppa lay tagg kay dox di xas ña dul ñooma lay dox di suufoo ka nax joxal yow sa mbir yàlla ak sab sëriñ tefar génn nit ñépp sab xol te fëx lu dul yàlla ak sab sëriñ ak ndigal defal loola nit ëkk kon doo torax ku ànd ak ñu lay nax te foogoo ci lëf asal bant ngay saf bu max gay burux ku dun yaa ki gaayam waral muy bégit dadib dof nde ñoo koy xalootee jañax defal yow ndigal wéttal ak àndandoo te def kopp xarit def ko cin wal mu bax ñu laaxal la yëkkal la ci dab yu set te ràccal la uppal la si far la jox sa xol sedd guy sa ràccum ngërëm bu dul jeeti ngay tibb kay dox di sax sa xol sedd guy ak sa ràccum ngërëm bu dul jeeti ngay tibb kay dox di sax te loo bég bégit tey bu ëllëg ñëwee nga gën faa bari mbég te gën faa ne tax defal nit aku jur ni loo romb wéy te def kër ni ab àll doo geesu sax bu as gor fa bee ay mbiram jox la yow taxaw temm nag ci biram war la yow ku lay kër këril saa su jot am na kët ci yow àq bul def mbiram niw gelaw taxaw jonn tey jii ci sab sang ak ci say donga moo des ci yow def ko raw defal lëf ci biirum murit mbaa mbaa nga def ca kaw lëf defal lëf ci biir ak ca kaw defal lëf ci biirum murit mbaa nga def ca kaw lëf defal lëf ci biir ak ca kaw ku dul def ci biirit dafay def ca kaw ku dul def ci biir ak ca kaw mat di daw ku dul mbër ci biirit na def mbër ca kaw ku xeeboon ci biir ak ca kaw gàcce ñëw te luy indi gàccee ku ay loola yàlla na teg gi wéeg lépp luy tax nu sew te luy tax nu bég gaa yi nuy sopp bég teeg ëllëgiti yal nañu jàmm xew sëriñ bee sunuy gaay a ngi noo ngi nii saraf noo te jàmm ak tiraangaa ku yiw sunuy gaay a ngi noo ngi nii yaa ngi nii tawal taw bu dal xel bu tooyal lu wow danga mel ni am cee ba nit ñépp yow lañuy dox di xaaroo ka seenoo ko naw danga mel ni am cee ba nit ñépp yow lañuy dox di xaaroo ka seenoo ko naw fi sébbee ngi lay woo fi sébbee gulit ñi ngiy woote foo dem ña ngay bëgg taw ñaam lëf dañoo bëgg ndolleen ci yow ñi ñàkkit dañoo bëgg am lëf ci yow falal ñépp ful ñépp may ñépp yiw te leeral sa digg ak nu nit faww yow di xut bay murit te doo def lu dul nelaw daala kay lekk cay lii ka bon di santaane ak jub te doo def lu jub ndaxam gaa yi ngay dox di xut baala gën danga jàpp gaa yi nelaw yépp yee ba gaa yaa ngi nii yeewu yow ngay xaram jarag joofi ji si yaa ko may ay garab bëggoomam ba wér ay jógal faj lu ren boroomub léget boofu ji si yaa ko faj bëggoomam ba wér nag nga tee koo xasan te yow nag fajoo sa boppit wéroo ba wooyit xasan gënoo kenn kon tafajkat bu jàppoon jarag yépp faj te jàppul loram faj jarag yaa ko gën jógal faj sa bon gi bu wér dooratee fajal kenn ak bon asal kon nga gën ku wax lëf nga mer ku def lëf nga mer te kuy mer nga naa ko du yow deeti man di foppee ka raggee ka fóoti tilim te fees ak tilim lii du tee kët nga bon di waaree ka woote te yow waaru woo jógoo wuy jiit ay sa bon gii ka jan ndaxam ban ba tey yaa ma won saa ayib ba gis naa ko sellal ma nag yaa ko man ayib yii nu gis ak yudul yii nu gis fabal yépp fóotal nu baaxal nu nun lu dul loonu tànnal fegal faw yow fegal noo fegal it lor ak gépp bon ki fab saa ayib ji ma gis nëbbu tey bu bis penc baa it da koy nëbbati ki tax képp nit jortu aw yiw ci man du won nit ci man nii lu muy sikkati ki tax may amu yiw ba may ndaw ba tey du fekkeeti may ñàkk yiw mukkati ki tax ay wujjóg mooy ma mooy saa barab du seetaanu ay jëm fu may nekkati ki tax may amuk dundakug wér ba tey fasoowul ma ñàkkug wér ak dundati ki tax may amuk cant ak ndolle nit lu dul dog fasoowul ma ñee kennati ki tax koo fi gis réere bon gii ma bon du wacceet du waññeeti bon gii ma bon fennati ki tax koo fi gis réere bon gii ma bon du waññeeti bon gii ma bon fennati ki tax may suturloo ka am saami bét nelul bon guréy gii ci man feeñati ki fab démb fab tey jagal moo xaloo fabit moo na ëllëg jagal léppati ki feesal nit ak sing waay ak tojal te dox diggam ak xet du koy lottati gisal sing waay ak tojal doo ko gis xesaw lëf te génnul faral yéemati te biirum nit ak mbuutayam kepp it bu dul kon boroomam ku koy fonkati bu dul kon boroomam ku koy jox sa mbir bu dul kon boroomam ku koy bëggati bu dul kon boroomam ku koy geesu sax bu dul kon boroomam ku koy toppati ku xam lii na ngay deeti réyloo waxal ku xam lii na ngay xeebe mbindeefati toraxlul te xam sag bon ak sag torax te xam nag ni yaa gën ku nepp sangati bu fekkan ni sab sang day toppi nit la muy def xamal kon ni doo baaxati dalay jox di tàllal te naa teg ci lëf ma jox laati ngay bañ faral tuubati ndaxam yaa ngi saf waaju bay am dugub déwén jot mu naa man lu may ruujati bu fekkoon ni yaa ëpp say kem dugub konit dëgg jëkkal déwén toolati ku jiituy kemam tax mu bég bay taxaw duwoo loolu ne faa ko waaxul jote dawal yow ba jot gaaya raw seeni kem te dolleeti saw xel baraw leenati ba def kenn koo xam ne nekk kenn nekkatul sa digg ak larab yàlla bay wammate ba def kenn koo xam ne kenn nekkatul sa digg ak larab yàlla bay wammate sa kem yépp dandul baraw seeni gët te daw seeni xel dem fu kenn dul joti ku def nii ma wax kenn du seerug bonam ku raw ñépp sag bon ku koy seenati ku tolloo ku nit nag ñu gis say ayib ku raw ñépp ne faa amul maasati ku tolloowul ak yow du xam say ayib la ngay xeeba kay daane lay yëkkati te moom it la muy dox di naw ngay falang ku am junni dootul nawub tànkati ku bëggug raw ak yegg nay sànni bët ña koy ëppi teg itteeki teg giinati ku bëggug raw ak yegg nay sànni bët ña koy ëpp itteeki teg giinati ka ngay njeeju moo lay xamal say ayib ba ngay ittewoo ak dañam fawwati kalay njeeju nag day waral say ayib ni far meng ngay gis sa jëf yéppati xamal yàlla xam yàlla rekk kay jariñ ku xam yàlla doo gis lu lay yàqati ku xam yàlla loo gis dalay far defar ku xam yàlla loo gis dalay yëkkati bu sag lottu dikkee nga def loo kaman bu sag man ñëwee it nga far santati lu mooy yàlla bon bon ndaxam réere ko koraw fopp muslul ci yaarati bàyyil yow sa bopp ak ka xam mante am mu daaral la may lay ngërëm joppati te seexal la feesal la sellal sa xol te dollul la wëllis kudul moomati te seexal la feesal la sellal sa xol te doylul la wëllis kudul moomati te yeesal la peq ngëneelam te fab lu nekkan ci yow ci ayim nëbbati te dàkkul la mboolem lu bon ak ku bon ni cas lépp loo soxlawul nëbbati di yalwaana kay xiifa kay marte yor sa xaalis budul jeeli leeti sewaay di yalwaana kay xiifa kay marte yor sa xaalis budul jeeli liiti sewaay bakkan moo di noonu boroomam te nag boroomam balaa làq ak fal musaay balaa kenn xëy doon noonam bëkkat da koy dàq not génne suufam mu daay ku noonam ba deewul du don ni yëfam bakkan mi bu deewul lu lay jox mi daay li ngay raasa kay wut bakkan bee ko yor notal boo notee am nga neel ak nga ñaay sa taaxum bakkan boo ko tijjee janoo ki téeméere kiy junni tijjil te jaay dangaa saytu say caabi tey tijjiloo ku ne kay tawat nag ku yeex ak ku aay xamal yow ni say caabi kat yaa ko yor bàyyil gaa yi ngay sikk tuubal te teey na ngay tuuba kay teey a kay yor sa xel dinoo yal sa wax boo bëggee tàbbi teey balaa kenn am yàlla am sab sëriñ te foo gis ku am baayamit am na yaay sa ndey nag dalay yor akay toppatoo ba fer jot mu sog laa feral jox sa baay te kon ngay juboo ak sa baay ak sa ndey nga fer jëkk seenug juboo rekk a aay ku yàkkamti bay sànni weenu ndeyam te dem nag fa baayam du am ab liggéey du mën lëf du xam lëf du def lenn lëf dafay tëdd kay lëj le liitii sa waay saa bon gu réy gi ma xam ak saa ayib ji ma yëg ak saa atilim ji ma gis doy naa xalaat ak a wax te bis bu nekk manaa saa bon gi ndax te mu yem muy jëm kanam xuuxu lii doy na koy wax a wax gaa yaa ngi may yéema kay wax naa kilee mata xam ngir réere saa bon gi way man koy waxit duma wax la yàlla xam doy na maa ngi seenu yërmande man xam naa lu xew ku xamul na yéemu koy wax a wax maa ngi di jéggulu mboolem jëf ju bon ju ma jëf te maa ngi jéggulu mboolem wax ju bon ju ma wax te yàlla nan yàlla jéggal gépp mooy gunu moy diirub banuy gone ba tey jii li lee mata wax te yàlla nan may nu farloo farlu tey xiri xir tey toppa topp ndigal tey def lu baax ak a wax te yàlla nan yàlla may nuy ittewoo ngërëmam ba fàtte mboolem lu dee faa soxla woo ak a wax ba ban ba muy dëkke sun xol dëkke sun yaramit nuy dëkke daw lu mu sib tey dëkke def lu mu wax ba xam ni sun xol yi dootul sopp lëf lu ko moy nuy ittewoo ndigalam tey boole jëf ak i wax te lépp lum digle yal nan dàqalit xëbulem yal nan waxam gënalit mboolem lu dul la mu wax sëriñ bi fóotal ma saa xol bi ba dootu tilim mboolem ko am xol bu dul yàqooti yaa ko ko jox jàppal ma saa lépp tàbbal faw nii gi ndigal loo def lu wax lu ko naa koy dox di def ak a wax tàbbal ma nii gundigal ak jépp waaju la gëm te tëj ko yóbbu sa doomu buntuma la ko wax sàmmal ma saa cër yi ak saa xol ba dootuma def mbaa may xalam ndare say mbég ji waxey sama wax fegal nu lépp lu bon féqal nu lépp lu gën feesal nu delle ki yiw nangul nu lii nu la wax def nuy murit guddalal sun fan yi yow mi ko man sarax nu ngir yàlla ak yonen ba def li nu wax mëddal nu wunti naqar ubbil nu wunti mbigit doxal doxal mu sun digg ku yéefar ba dootu nu wax mëddal nu wunti naqar ubbil nu wunti mbigit doxal mu sun digg ku yéefar ba dootu nu wax faral nu col daara kuk lémb ak lu deefi tawat fegal nu it lépp luy jur ak tawat ak i wax yaa wuutu yonnen ba tey yow rekk a fi sunu ndey ko am sa ndey danga fay jooyee ka dem ak a wax jógal te wallu nu tey jóg wallu bépp jullit ngir jëmmi yàlla te kat yow sang bi lan wax yàllaa nu sàkk ak sunuy jëfam dénk la tey yow rekk lay diglu boo noppee ku fi xala wax sakul nu jàmm fa péeyu bi yàlla kon danga am ngir yàlla dootu la delloo xam nga yow li ma wax bul nuy jëmee natu ak kër-kër fabal nu sunuy natoo ki kër-kër joxub yéefar ba nuy tala wax tonil nu mboolem lu neexul jox ko gaa yi nu moy bun seeru mukkati nun kuy def lu bon ak a wax dolil nu sun gëm yi ak sun diine tey rafetal sun njortu tey rafetal sun jëf yi ak sunu wax notal nu àddina ak taaram bi jox nu ko nag te sikkuloo nu ko yit nim sikki góoma ki sax ngënee li kër gile ak gee jox nu yépp nu yor bu wenn yiw deste luy lor buñ ko déggati sax nam jag fi àddina bay raw jépp waaju fi jag te jiitu firdawsi kuy dëddoo ka laaji sarax mi tiitu dee ak siraat ak laaji jëf aki wax fegal nu nun bu nu ki wax fegal nu nun bu nu gis kuy laaji jëf aki wax defal sunu dee mu mel ni lem te dàq ko far waxal nu jéggil nu may nu doy lu wëlli si wax fu nuy fasantee ki ruuteewal te may nu fa mbég te àndal ak nu ni tam bantab bi moomale pax te dëgg moomale pax nay féex a kay gelawit tey leere ni jant tey taaroo ka yaaka ne tax te waaye kat guddalal sun fan yi may nu wérug yaram te may nu wérug xol léegi lii lanu wax fajal nu sun aajo ak aajo yi ku ji siwile way te dal di fay ay wi tax koo gis di tiit ak a wax ngir jëmmi yàlla ji nangul way wi nangu gu wér fabal nu it sunu bon gi nuy xalaat ak a wax xam naa samay mbir te fab saa bopp dénkati la musal ma baaxal ma yor saa mbir yi lëf tëw la teggil ma mboolem lu tee man mii ma tekki fi lëf tekkil ma yaa tekki yow ngir kenn nit yëbu la fa dee fi seete la nit daa xëy di wax ak a def bu kenn gis la ma daa wax ak di def mani la nëbbal ma saa jëf yi fab say jëf sarax ma ko man sa jëf yi moo ma gënal saa jëf yi yow bonu la samay wax ak sama jëf nay ngeen ji wax ak i jëf defal ma yaa mante def kenn dootu wax mënu la faral ma mooy guma mooy soppil ma koy ngërëmit fegal ma gépp mooy it guy dikk lii doy la yaa xej ji yaa am ngërëm sab sang yaa ko teral moyoo sa sang bi yow sab sang it moy la mboolem ku dul yow ba muy ndaw daana def ak a wax yow nag ba ngay ndaw ba tey yaa ngi defoo waxu la àddina ak dex la gug suuxal na gaa yi fi won te gaa yi tey yaa ngi lay lab waande yow lëbu la yaa ngi difee yëkke wiy gaa yaa ngi xuusaka lab ku yow jox si la boppam koo gisul gone la dama xamul man na may def ban yëgoo te juboo ndekon ma def ko ba saa mbir yépp faf jubu la dama xamul man na may def ban yëgoo te juboo ndekon ma def ko ba saa mbir yépp faf jubu la man donte man naa ko doon juuyooti mukkati lëf te donte may nga ma lii kon dey ma santati la la may mébét bu ma koy am dooma sikkati lëf yannaa ko am kon nga am koo xam ni sopp na la te saa mébét moo di man moo xam ni kenn du ma gis may bëgg lëf mbaate may wut lëf lu dul jige la soyam ma seeyal ma yëngal maa yëngal ni firib may saw yaram tey sa mbubbit nag ba soppiku la man lii ma doy te lu dul lii waa ji bëgg na fab man jox ma lii jox gu ànd ak fan wu gudd nga la mën naa di yow nga di man muy jenn jëmm ju wér defal ma lii ma la wax def lii ma wax tëw la ma dénk saa bopp aw yiw ak muhammadu mi ndax yàlla boo leen jox ay yiw wudul jeeti nan yéene aw yiw te wax aw yiw te def jëfi yiw tey dëkke aw yiw itam te yeewu tey yeete te yow muhammadu jàmpal jàppal dénk bii ma la jox jàpp ngërëm konte lee ngay sant fooneeti te yow muhammadu jàppal dénk bii ma la jox jàpp ngërëm konte lee ngay sant fooneeti ruujal lu bon faru aw yiw kon nga saxle ngërëm tegoo bu yiw sang mboolem pegg boo féete bul wex garab bu wexee doomam ba kenn du ko sex mbaa waaju koy sexitam day dal di yabbeeti defal garab gu lewet guy sedd ker te guddul tey neexi doomit ba kuy mos dal di raaseeti féexal saqal nitaxal yaatul te bul ami dëkk garab gu mel nii ma wax doo gis ku koy baati wanal sa mer yow te jéggal jépp waaju la mooy kon yàlla jéggal la fay law yi wudul jeeti ma dénk yi réew yi wit nag ak muhammadu jang ak abdu xaadir ak yi maasam ya bëgg ngërëm njegam dangeen a bëggu yiw bëgg làq mébét wax leen yiw defu yiw te yéene aw yiw itam sëriñ ku aw ndigalam moo nekk ci wanagam na ceeb xolam ab sëriñ kuy moy ndigal sëfu ko yow donte yaa ngi ci manding tey awit ndigalam yëgal ni yéena ngiri soo yàlla seere na ko te donte yaa ngi fi poojam tey moyit ndigalam seenu diggante fi sut ndar lii ka bon moy ko tey gaayi tindoo di seenu dénk mat na mi ngi ñun ñépp yal na sunuy mbir jub te yëkkatiku fañuy falee ka fa beeka bindelëf aka far yal nañ fa fal ña faluugul far fa seenu naqar fa dee fi àtteelu ne kay binde gépp ndogal yal nañ fa àttee sunu jëm kaw dogal ko fa far fa dee fi dëppe ay ak lor nañ ñu dëpp di wéy yal nañ fa dëpp sunu ay muy wéeg sunu lor fa dee fi tàggate nit jox nit mu saytu mbiram yal nañ fa tàggate mboolem nit ñi jox nunu yor fa dee fi seexale nit muy sant kay amu nit yal nañ fa seexale mboolem gaa yi nuy joxi mbir fa dee fi sellale nit muy sell kay amu yiw yal nañ fa sellale mboolem gaa yu gëm yi nu wër fa dee fi sante murit dëral ko dolli ko ndam yal nañ fa sante murit buy aw ndigal te du wor fa ñuy dajee ka jisee kay séddalee ka defar yal nañ fa séddee ku nekkub cër bu tax mu sawar fa ñuy fexee ka fajey aajoo ko dàkku lu bon yal nañ fa faj fawu aajoy ñépp dàkku fa bor barab ba ñuy defe biir ak biti luy bëgg am yal nañ fa def lu nu saf loo xam ni bette na ñor fa dee fi yokke fanu nit fan wa yokk bu wér yal nañ fa yokke sunuy fan yépp yokk bu wér fa dee fi ubbeeka nangu ñaan akay may mbég yal nañ fa nangu sunuy jëf far fa yépp naqar fa dee fi ubbeeka nanguy ñaan akay may mbég yal nañ fa nangu sunuy jëf far fa wépp naqar li xol bi yéene ci aw yiw yàlla daa la ko xam moo mën ni cas benn lii may bëgg it ni ma am mboolem lu bon bëgg naa ca gën ma set ca bu wér te dëkk ci yiw te ànd ak yàlla faw te gëm man yàlla laa bëgg a far def àndandoo fu ma jëm ngir yàlla moo ne fi man moo nekk it fu ma jëm tamal sa bopp lu dul sax loola ndofu la gu bon te ànd boo seeru tàggoo cay xaloote gu cam sancal ca ak topp dëkk ak yàlla doo tuxu kon bay wéete kay ñakki àndaale ka dox diggalam dëkkal ca ak topp toppay njëndi dëgg lu dul xëy gent lar bu ca dul jóg mbég du jóg ci xolam ku dëkk ci topp day am yaari ajjana far jee àjjanaa ngi mu àndal jee ca lay xala jëm njëgam xamoo ji mu àndal moo di xam ga xolam xam yàlla jee mu xaloo dem nag ku nekk a ko xam te gaa yi yal na nu am nun yaari àjjana yii ku boole àjjana ji ak jee du ñàkk xoram ak topp yàlla ni gaalu jéeri rekk la mel dafay daw ak yow di wéy jëm àjjanaa ki ngërëm bul génn ak topp génn topp rekk a di ay ku génn gaalam te yëggul sikk am ci mbiram ak topp moo am njariñ yal nan ca dëkk bu wér te sax ca faw ba dem firdew si ànd ak ndam bul ñeekul topp yow kuy topp moo matañee kuy topp moo nekk ciw yiw jëm ci wépp yiwam bul ñeekudul topp yow kuy topp moo matañee kuy topp moo nekk ci yiw jëm ci wépp yiwam lu toppkat mën a am ci yiw ci àddina ji lu rëy rëy it xet gu tukkee ajjana ma ndaxam ajjana yal na nu yónnee ci xetam lu nu doy nuy topp xet ga ba janloo ki ñamam di ca ñam te yàlla nan mucc tey ji musle mucc ëllëg musleeti far guddatiw fan teg ca wér gi yaram àddina lor ji ci biiram jépp yal nanu mooy te mooy sunu nit te mooy nag waaju neeku nitam te yiwu nekk ci biiram yal na yegsi ci nun yegsi nu jàmm wu lor dul bor xaloo ki ndawam alaaxiraa ngaa ki lor moom it yu ñépp ragal lor yooya yal nanu mooy mooy waaju gëm sëriñam mangaa ki xéewal mangaa ki ndam te yal nanu am mboolem la fay xiiwal ak ndam ak mébét mu fa am te yal na yàlla ni cas mboolem lu dee fi mébét te ak ëllëg may nu faw ak may gu lor bañ a am te yal na yàlla ni cas mboolem lu dee fi mébét te ak ëllëg may nu faw may gu lor bañ a am yow yàlla nangul lu teew ak luy ñëw ak lu wéyit ngir jëm mi ban ba ki lay xam leeka xam ak a am ban baa la xam am la moo def lépp loo ko digal te sànni loo diglewul moo tax mu xam la te am ey yàlla may noonu def nag ban ba nii mu la def ba xam ko am ko bu wér moom it mu xam nu te am ey yàlla may nu nu def nag ban ba nii mu la def ba xam ko am ko bu wér moom it mu xam nu te am muccal musal am njariñ may nit ku nekk njariñ xam-xam le mos-mos le raw xam ñépp nag rawale yii fukk yàllaa ko am koo xam ni am na ko it yàllaa ko fa may ko yàllaa may nu fukk yi le te may nu faw sa gépp cant ak sa ngërëm ngir tedd ngay Mustafa ak jëmmi ban ba mile te leeralal sunu digg ak ban ba def nu mbégam te def ko muy sunu mbég fawit defal nu lile sëriñ bi yal na xolam bay sedd sedd ci nun tey jëm kanam ba ba nuy dem kër gu tedd gële su nuy xolit yàlla nay bég nag ci moom ak a jëm tey sedd faw ci moom it nuy gërëm bëtale te yal na yokk sunuy fan yàlla yokk fanam nu bokk jag gudd aw fan jàmm jaa ngi ni le lu muy mébét ci boroomam lépp yal na ko am te am lu muy wut ci nun kon muy faloo ko fale la muy mébét ci boroomam lépp yal na ko am te am la muy wut ci nun kon muy faloo ko fale murit bu nekk la ko sangam di sàkku la gën mboolem la muy wuta kay ngéejoo ka daw di jëli kuy sàkku dàggaa ki ràcc ak ay jaxas bu ñu koy bayloo na bay léegi kon nee faa ko yépp a ngile koo xam ni day bay bu seenul añ ba ak ba tamit teewul ma ngay ñëw muñal nit añ te far bayali yow ban ba dolleeti nu jub dolli nooti ñu jub dolleeti nu taalubee kii taalubee ti file ku dee fi tudde murit dollil ko ak muritam te dolli ay muritam fam ñépp nag rawale yàllaa la may dundal mbaa sax nga fay ko borom boo dul mayetu war a fay ku lay lebal boo ko dul may lëf te fay ko mu doy labon fa yoo ko mayoo kës lëf di may ku ko moy ay dal na képp ku am ak jot te jéemu la jot mboolem njariñ lu ko raw tey rëccu moy gu mu moy ku lay ko bas aka woo diiru ba ngay gone yow ba jàpp tey jii nga war koo geesu faale ko ciy yàllaa ngi lay soññ ak yoneen baag sa sëriñ ngir bëgg ngay waaju dundal diina ji fegu ay te sab sëriñ jox na la yóbbal bu doy sog a dem xamal la ngir ma bu wér soññ te soññ ñu wéy koo gis xamal ko boroomam yàlla yow te taxaw ci diine xol lu bañal bul def ku àddina jay ku xamul wér cëñ biir ak biti ket la ca gën jëf-jëf ju wér ci nga biir ak biti noonu la day te xam nga xel ne dee day ñëw te àddina ji day wey te laaxira ngay teg bët bu wér ci sa pay dalal di jëf lépp loo sopp payam ku ne gis te dal di daw lépp loo bañ ak payam wéewe dalal di jëf lépp loo sopp payam ku ne gis te dal di daw lépp loo bañ ak payam wéewe way jot na nit ku wéyul buy rax bi jaaw akawam moo war ni cey li ma dal moo war ni wéy sama ndey mag day amug way ndaxam perli te mag ku wayul ngir way na cig nàmp way cig dëgg fii may way wéral nu cëng te may nu way tegal nu ca way setal nu wecc ci bon bon yépp jox nu tubéy musal mu cig bëgg lëf loo xam ni lii du ngërëm rekk ak ndigal def nu soppe bi yàlla faw bu rëy naa jëm ci yàlla bu wér saaxol bi jëm ci bu wér samay cërit jëm ci biir ak biti may ku ñu roy ku nekk foo xam ni mboolem yiw nekk fa am te jëm fu dee ful fores yiw farlu war na la kay àddina kër la gu ñuy sàkkoo lu nekk ak am alaaxiraa di kërug pay jëf ju yiw du fa doy te donte dund nga junni at di jaamu bu wér du tax bu ñuy faye ngay naw pay ga luy pexe ey ngay dund loo xam ni lii nag xaaju koo jige sax te sànk ci at yu takkoo takku yàlla na nga yey yow yàlla boo farle yoo sax yàlla yàlla na la faf yërëm yërëm nu te may nu doy lu wëlli su lay dëkkal ci moytu te dëkkeek farlu waxatoo jot tey daw ku sàggan akuk càggan di fonk sa tey sa tey ju ñëw def ko ñëw sas bay ko mbay mu rafet mu sell moo xam ni moo gën bay mu nit masa bay saxal ci tuub ak xalam sag mooy di wéet ak muñ te xam ni kuy fay jëf say jëf la lay xalafay saxal ci tuub ak xalam sag mooy di wéet ak muñ te xam ni kuy fay jëf say jëf la lay xalafay na lépp nangu sunuy mbir jub sunuy pexe jub naataange ñëw faw bii rek biti dëkk fi nun walloonu wërsëg wu suuxal aajo yépp wu lew wu yaale wet sedd mboolem xol yi guy yëti ren tàbbil ngërëm tàbbi taw féex ak tiraanga nu for tàbbik cofeel ak nga ñaay ak fan wu gudd wu gën barkeeku yiw yal na takk ak jàmm tekki fi nun te wàcc faw wi fi nun naatal mu dëkk fi nun na dil nu yëkkal nu taajal daw yu tedd fi nun ni cas mbégum ñépp faw ak say ngërëm ni nu foox wàccee li xéewal yu dul jeex ak njariñ yu ñu naw yu ñépp xañ may nu faw doy lu wëlli ci seex tonil niwug lu amul niw jox nu faw wu nu am sunu diw ak sunu mbaanig boole yóbbu ni ciix bégal nu nun ñépp yaa yor mbég te yaa mën a jox nit mbég fa bal mbégi mbég yuy wéy di wéyit ni nu foox neexal fi ñépp te neexal ñépp dàq fi nun mboolem lu neex ak lu sedd xol saxal mu ci nguur wutul nu mboolem lu nit ñiy dox di bëgg ka wut ba gis ko yet nu ko nuy yokkoo ka am lu nu wóor tawal nu taw bu ñu roofuk mucc roppi ca lor bu dul sewet bu ñu taw féexal notal nu kajoor bësal nu waa Bawol ak waa fépp bés gu rafet ñuy sëgg faw fi nun nuy sant kay notu góor walal saay gi te muñ bul jéema wal gu ko moy kuy jéema jàpp ayug jaambur di wal du ko man toggal ba sottal ku sottal sotti maa la ko wax dugub ju ñor xomm góob ak dagg rekk ca gën nawet dafay wàcc yeex a gaaw a cay xala am lu man di am wàcc am cay mii misaal ak a jam sa ngaa dagaanum nawet bu yeex a wàcc bu jub buy tax sa mbir ak mbirum ko yéena jàmm yéwén sañoo dagaanum nawet boo xam ni bii du siwét nawet bu lépp ñoree ab taw da koy taxa bon ku xam dugub cim nawet ak gerte rekk mu doy ku xam lu doy na ko doy loo gan du yokkalu gan nawet bu wàccam jotee fafu wàcc rekk ca gën nawet bu cang rekk a bon yeewul sore ki xaran sunuy nawet yépp biir ak biti yal nañu jub te mucc faw wu ci gooy ak cang ñu boole nu tin ñu ñépp yal na sunu ay ak ayuk ku nu saf rafet yéen sell jub saf sàpp yàgg sa kan te yal na ñépp ni ñokket wàcc seeni barab ñëw faf nu walle sunu ay dëkk faw fi nun fu nekk yal na fa ndimmal buur a jëm si ci nun te fekk ndimmal fi nun yuy dàkku ay fegi fen yal nay njariñ buure gépp wet ni xëpp fi nun sax dàkk dàkk fi nun lii yàlla daala ko man addina moo di nawet nun ñépp yal na nu am nawet bu tàndu bu nangoo nangu tey sunu muur addina moo di nawet nun ñépp yal na nu am nawet bu tàndu bu nangoo nangu tey sunu muur barke di dem àjjanay firdawsi yal na mu am nun ñépp barke bu dootul dañ ba dëkk ci nguur bu rey ko gëm yàlla gëm yonen ba wàcc lu bon nun ñépp yal na mu di kàngam yu xëy defi buur ka yokku moo di ka yokku jub te yokku ngërëm nun ñépp yal na mu sax ci yokku faw gu wóor ka dëddu moo di ka dëddu mooy te jublu ndigal nun ñépp yàlla nanu sax ci dëddu faw di nuur koomum njariñ moo di cantu yàlla yàlla nanu am koomum njariñ faw muy fekk lor te lëf du ca xuur ka tedd moo di kadul mooy mukk yàlla nanu am nun ñépp tedd nga jël ndam biti jël ko ca biir ka yàlla rus moo di kay rus yàlla yàlla nanu rus nun ñépp yàlla mu rus noo rus ba fa fa dinu wiir ka topp yàlla am yar dëgg yàlla na nu am nun ñépp yar bu rafet buy feg lu bon fegu toor kay sant moo rafetum xel dëgg yàlla na nu am nun ñépp xel mu rafet muy yéemu nit fa kajoor kay nëbbu nit ñépp am ak yeewu yàlla na nu def ku yeewu jar ci gépp wet di jàpp ka fiir ka yàlla àndala jël ndam rikk yàlla ñëwal ànd ak nu nag képp koo àndal te dolli nu muur daqal sunu dig te jañ koo jañ mu wéy ca kanam te def nu ñuy dolli koo kay jëm kanam li kanam daqal sunu dig te jañ koo jañ mu wéy ca kanam te def nu ñuy dolli koo kay jëm kanam li kanam yokkal sunu dig te jañ koo jañ mu wéy ca kanam kuy bañ nu jëm ca kanam noppal ko jël ba kanam mboolem ku nuy bége biir ak biti yal nañu faf jañub digam ca kanam naatal ko yokku digam mboolem ku nuy buuxa kay tas déeg yal na ko jañ cim kan mu gantal ñu bay bàmmeelam ak wanagam ku bañ ñu ruural ko day dollim ñagam ba mu tal te xupp kuy ruura kay sàqim ñagam ni ko am ñun ñépp yal na sunuy mbay nangu loolati ren ñu jàpp mboolem lu nuy sàkkoo kewut ni nu am ñun ñépp yal na sunuy mbay nangu loolati ren ñu jàpp mboolem lu nuy sàkkoo kewut ni nu am ñu nangu jël fawu biir ak biti sant bu wér ñu faf nu dolli ci gépp wet nu xëy di gërëm alhamdulillahi dolli cant daala nu war may yaa ngi ñëw dajaloo ni béy fi nun ni goram yii ñëw na yii ngay fexe ñëw jàmm rekk fi am bon bon yi mooy nanuy yàlla gën ci nun ku ñu xam ganum njariñ masu fee jóg mukk dootu fi jóg nitug sabab masu fee am mukk dootu fi am yu bon yi kenn xamul ak mboolem yu bon yi ñu xam yàllaa nu fii wale nuy fii woo ka mooy fu ñu jëm ngërëm ci kaw ngërëm ak tuubug tawat lanu fas yéene saxal tey fa boo kay jëm kanam li kanam doo def lu dul noona biir ak biti loo mën a def muy noona naa la ko wax kuy sikk sam noona doo def lu dul noona biir ak biti loo mën a def muy noona naa la ko wax kuy sikk sam noona yaa xam lu wér yaa ko am yow rekk yaa ko manit te yaa ko sañ loo deful àccam dadul noona tuubay la war ku la mooy santay la war ci sa jëf aayoo añaanoo te siisoo kenn it noona yow loo dogal dana am bis lépp loo dogalul lu yàgg-yàgg du am ak dëgg saw yoona rafet ci yow njort rekkay mbir ci loo mën a def jortu yiw ak jëfi yiw baaxub ña baaxoona doo def lu bon mukk doo seetaanu ay dinu dal xiinal ngërëm dotti gépp cant sew xiina xiinal nu xiinu ngëneel ak barke xitti ci nun ba ñépp bég faw bay wax mbir yi rabboona yaafal ña lay moye kay moy loo ka sikka ka bañ moo tax ñi lay sopp seenu cant gëndoona sañal nu bën bëni lor sañal nu bën bëni yiw xëy noo ki cant yu rëy yoo xam ni déggoona xëy noo ki xam-xam yu mel ni waame fee sa njariñ dikkal saxal yiwu suuxal saañu ak suuna jañal nu mboolem lu nuy musloo ka bañ mu ni mes ñoddil nu mboolem lu neefaa lii la neexoona fayal nu bor bu nu yor doylul nu wëlli ci bor dàkkul nu gépp moy ak koo xam ni sam noona réeréy waral nita bon réeréy waral nita mer ku saw yaram maxe say gët suulu doota la mer réeréy waral nita bon réeréy waral nita mer ku saw yaram maxe say gët suulu doota la mer ku nekk ci mpax ba suuf ak bant bokk la war nga xam ni lépp lu dee faa mer mu ñëy la ca war wéetaayu àddina ji ngay gis du lor bariwul wéetaayi laaxira rekk kay lorte moo gën a tar sëriñ bi dem na boroomam des fi yàlla na nu may lu gën gënal nu gënal nit ñépp may gunu bir sëriñ bi dem na boroomam des fi yàlla na nu may lu gën gënal nu gënal nit ñépp may gunu bir loo xam ni lii bu fi nekkoon def ko fawu ci nun yow yàlla def ko ci nun ñii def gu sell gu wér dem gii mu dem def ko muy ndolleen lu màgg ci nun dig yokku faw ci nun tey sàllu ndam wu nu far jagam gi may nu ci faw jag gu yéemu gu sax akuk jigéen yàlla faw ak jëf ju sell ju ñor xëy gii mu xëy ni nu mes fawit musal nu ci lëf lu saf lu dàq fi nun foppuk jur ak ñanu jur ubbil nu wënti yiw ak mbég yuy njariñ di bawoo yusu xaluñ jula fappang mbay mu nangu mu ñor may nu tabak sellal ak xaalis bu lew bu lewet boo xam ni bii lu nu jox jox nit ñi muy niru ngar loo woo mu ñëw fawu koo wooyit mu ñëw ku la woo fawit nga ñëw wooye naa la yi wuyul ni jasar woo naa la man ci sa tur woo xam la ak ci sa tur woo xam lewul wuyu maa yow ngeen ji koy amu tur ñëwal te bul ànd akas lor àndal ak sa njariñ te dëkk faw wi fi nun nuy mucc faw wu ci lor ngay bég ci nun faw nuy bég faw faw wu ci yow ngay sant nuy sant dootoo mer te dootu nu mer am ngeen am gëm dolli kootig wóolu it bun lor jigéen it teggi wéy dox til fi nun am leen am gëm dolli kootig wóolu it bun lor jigéen yi teggi wey doxtil fi nun yàllaa nu dàkkul tiis ak yi lor jëkk tey te ku yàlla dàkkul lor asal gistil lu bon ak cant daa lanu war gu ànd ak aw ndigal ak tuuba ku sellal te taqoo jëf ju gën ku ñu faggulum mucc ak njariñ day sante xol ak làmmiñam teg cay cëram gi cant gën aajootuma am lëf lu dul kàttan gu may sante ka jaamoo yàlla lii laa bëgg man te amu lu may sàkkooti it ndare ay ngërëm ak yàgg duniyaa ndaxte saa jëf yi sa kan sama xol bi soppul tey lu dul ak jëm kanam ak am la mboolem xej yàlla ya am ci kun yow ban ba may noote njariñ yuy lor néwul ak mbir mu jub ak xol bu sedd ak gudd fan fam naa samay mbir ak sama jur jox la des wuutal ma say ngërëm ak sa bopp ak sa yéwén fam naa samay mbir ak sama jur jox la des wuutal ma say ngërëm ak sa bopp ak sa yéwén bàyyi naa samay bokkit ca mbaakol ñëw fi yow ngir bëgg sa cant ak sa jaajëf ak kiy galem tey nag sa gan laa sa murit laa maa ngi nii yaa dàq gan mboolem ku ne faa mën na gan fagul nu ngan goo xam ni moo gën gépp ngan tey ak ëllëg yaa gën sunuy waajur ci nun baaxal te bul gis mukk nit kuy bon di bon bay tax nga naa waaj yi ma gis am til ngërëm baaxal te bul gis mukk nit kuy bon di bon bay tax nga naa waa ji ma gis am til ngërëm ngir yàlla kum jubloo jagal dal lay jagal moo moo mi jaamam ak yëfam ku mu jox ngaam danga gis ku jóg jiituy moroomam dellu bon gis waa ju bon xëy jiitu lii doy naa xalam doo xam ka ngay gën mbaa ka lay gën jëkk dee kuy dund yàllaa xam mbiram xam ak mu jëm ragalal te goo gis ne ko bul may fàtte kët lii laa la wax bul fàtte wax ji foofu jëm ragalal te koo fu gis ne ko bul may fàtte kët lii laa la wax bul fàtte wax ji foofu jëm farlul te bul sàggan te bul yeexew yiwit lub àll yaayaa boo ko sooboo leemu yam bii kër du kër goo xam ni dan fiy sax di wéy sëriñ ku aw ndigalam moo nekk ci wanagam na teb xolam ab sëriñ kuy mooy ndigal sëfu ko yow donte yaa ngi ci manding tey awit ndigalam yëgal ni yéena ngiri soo yàlla seere na ko te donte yaa ngi fi poojam tey moyit ndigalam seenu diggante fi sut ndar lii ka bon moyu ko tey gaayi tindoo di seenu dénk mat na mi ngi ñun ñépp yal na sunuy mbir jub te yëkkatiku fañuy falee ka fa beeka bindelëf aka far yal nañ fa fal ña faluugul far fa seenu naqar fa dee fi àtteelu ne kay binde gépp ndogal yal nañ fa àttee sunu jëm kaw dogal ko fa far fa dee fi dëppe ayak lor nañ ñu dëpp di wéy yal nañ fa dëpp sunu ay muy wéeg sunu lor fa dee fi tàggate nit jox nit mu saytu mbiram yal nañ fa tàggate mboolem nit ñi jox nu nu yor fa dee fi seexale nit muy sant kay amu nit yal nañ fa seexale mboolem gaa yi nuy joxe mbir fa dee fi sellale nit muy sell kay amu yiw yal nañ fa sellale mboolem gaa yu gëm yi nu wër fadee fi sante murit dëral ko dolli ko ndam yal nañ fa sante murit buy aw ndigal te du wor fa ñuy dajee ka gisee kay séddalee ka defar yal nañ fa séddeeku nekkub cër bu tax mu sawar fa ñuy fexee ka fajey aajoo ko dàkku lu bon yal nañ fa faj fawu aajoy ñépp dàkku fa bor barab ba ñuy defe biir ak biti luy bëgg am yal nañ fa def lu nu saf loo xam ni bette na ñor fa dee fi yokke fanu nit fan wa yokk bu wér yal nañ fa yokke sunuy fan yépp yokk bu wér fa dee fi ubbeeka nangu ñaana kay may mbég yal nañ fa nangu sunuy jëf far fa wépp naqar fa dee fi ubbeeka nanguy ñaana kay may mbég yal nañ fa nangu sunuy jëf far fa wépp naqar li xol bi yéene ci aw yiw yàlla daa la ko xam moo man ni cas benn lii may bëgg it ni ma am mboolem lu bon bëgg naa caa gën ma set ca bu wér te dëkk ci yiw te ànd ak yàlla faw te gëm man yàlla laa bëgg a far def àndandoo fu ma jëm ngir yàlla moo ne fi man moo nekk it fu ma jëm tamal sa bopp lu dul sax loola ndofu la gu bon te ànd boo seeru tàggoo cay xaloote gu cam sancal ca ak topp dëkk ak yàlla doo tuxu kon bay wéete kay ñàkki àndaale ka dox diggalam dëkkal ca ak topp toppay njëndi dëgg lu dul xëy gent lar bu ca dul jóg mbég du jóg ci xolam ku dëkk ci topp day am yaari ajjana far jee ajjanaa ngi mu àndal jee ca lay xala jëm njëgam xamoo ji mu àndal moo di xam ga xolam xam yàlla jee mu xaloo dem nag ku nekk a ko xam te gaa yi yal na nu am nun yaari ajjana yii ku boole ajjana ji ak jee du ñàkk xoram ak topp yàlla ni gaalu jéeri rekk la mel dafay daw ak yow di wéy jëm ajjanaa ki ngërëm bul génn ak topp génn topp rekk a di ay ku génn gaalam te yëggul sikk am ci mbiram ak topp moo am njariñ yal nan ca dëkk bu wér te sax ca faw ba dem firdew si ànd ak ndam bul ñeekul topp yow kuy topp moo matañee kuy topp moo nekk ciw yiw jëm ci wépp yiwam bul ñee ku dul topp yow kuy topp moo mata ñee kuy topp moo nekk ci yiw jëm ci wépp yiwam lu toppkat mën a am ci yiw ci àddina ji lu rëy rëyit xet gu tukkee ajjana ma ndaxam ajjana yal na nu yónnee ci xetam lu nu doy muy topp xet gaba janloo kiy ñamam di ca ñam te yàlla nan mucc tey jii musle mucc ëllëg musle ti far guddatiw fan teg ci wér gi yaram àddina lor ji ci biiram jépp yal na nu moy te mooy sunu nit te mooy nag waaju neeku nitam te yiwu nekk ci biiram yal na yegsi ci nun yegsi nu jàmm wu lor dul bor xaloo ki ndawam alaaxiraa ngaa ki lor moom it yu ñépp ragal lor yooya yal nanu mooy mooy waaju gëm sëriñam ma ngaa ki xiiwal ma ngaa ki ndam te yal nanu am mboolem la fay xiiwal ak ndam ak mébét mu fa am te yal na yàlla ni cas mboolem lu dee fi mébét teeg ëllëg may nu faw ak may gu lor bañ a am te yal na yàlla ni cas mboolem lu dee fi mébét teeg ëllëg may nu faw may gu lor bañ a am yow yàlla nangul lu teew ak luy ñëw ak lu wéyit ngir jëm ni ban ba ki lay xam leeka xam ak a am ban baa la xam am la moo def lépp loo ko digal te sànni loo diglewul moo tax mu xam la te am ey yàlla may nu def nag ban ba nii mu la def ba xam ko am ko bu wér moom it mu xam nu te am ey yàlla may nu nu def nag ban ba nii mu la def ba xam ko am ko bu wér moom it mu xam nu te am muccal musal am njariñ may nit ku nekk njariñ xam-xam le mos mos le raw xam ñépp nag rawale yii fukk yàllaa ko am koo xam ni am na ko it yàllaa ko fa may ko yàllaa may nu fukk yi de te may nu faw sa gépp cant ak sa ngërëm ngir tedd ngay Mustapha ak jëmmi ban ba mile te leeralal sunu digg ak ban ba def nu mbégam te def ko muy sunu mbég fawit defal nu lile sëriñ bi yal na xolam bay sedd sedd ci nun tey jëm kanam ba ba nuy dem kër gu tedd gële sunuy xolit yàlla nay bég nag ci moom ak a jëm tey sedd faw ci moom it nuy gërëm bëtale te yal na yokk sunuy fan yàlla yokk fanam nu bokk jag gudd aw fan jàmm jaa ngi ni le lu muy mébét ci boroomam lépp yal na ko am te am lu muy wut ci nun kon muy faloo ko fale la muy mébét ci boroomam lépp yal na ko am te am la muy wut ci nun kon muy faloo ko fale murit bu nekk la ko sangam di sàkku la gën mboolem la muy wuta kay ngéejoo ka daw di jëli kuy sàkku dàggaa ki ràcc ak ay jaxas bu ñu koy bayloo na bay léegi kon nee faa ko yépp a ngile koo xam ni day bay bu seenul añ ba ak ba tamit teewul ma ngay ñëw muñal nit añ te far bayali yow ban ba dolleeti nu jub dolli nooti ñu jub dolleeti nu taalubee kii taalubeeti file ku dee fi tudde murit dollil ko ak muritam te dolli ay muritam fam ñépp nag rawale yàllaa la may dund ku wér may ko jaamu gu wér mbaa sax nga fay ko borom boo dul mayetu war a fay ku lay lebal boo ko dul may lëf te fay ko mu doy labon fa yoo ko ma yoo kës lëf di may ku ko moy ay dal na képp ku am ak jot te jéemu la jot mboolem njariñ lu ko raw tey rëccu moy gu mu moy ku lay ko bas aka woo diiru ba ngay gone yow ba jàpp tey jii nga war koo geesu faale ko ciy yàllaa ngi lay soññ ak yeneen baag sa sëriñ ngir bëgg ngay waaju dundal diine ji tegu ay te sab sëriñ jox na la yóbbal bu doy soga dem xamal la ngir ma bu wér soññ te soññ ñu wéy koo gis xamal ko boroomam yàlla yow te taxaw ci diine xol lu bañal bul def ku àddina jay ku xamul wér cëng biir ak biti kët la ca gën jëf-jëf ju wér cëng biir ak biti noonu la day te xam nga xel ni dee day ñëw te àddina ji day wey te laaxira ngay teg bët bu wér ci sa pay dalal di jëf lépp loo soppuk payam ku ne gis te dal di daw lépp loo bañ ak payam wéewi dalal di jëf lépp loo soppuk payam ku ne gis te dal di daw lépp loo bañ ak payam wéewi way jot na nit ku wéyul buy rax bi jaawake wom moo war ni cey li ma dal moo war ni wéy sama ndey mag day amul way ndaxam perli te mag ku wéyul ngir way na cig nàmp way ci dëgg fii may way wéral nu cëng te may nu way tegal nu ca way setal nu wecc ci bon bon yépp jox nu tubéy musal mu ci bëgg lëf loo xam ni lii du ngërëm rekk ak ndigal def mu soppe bi yàlla faw bu rëy naa jëm ci yàlla bu wér saaxol bi jëm ci bu wér samay cërit jëm ci biir ak biti may ku ñu roy ku nekk foo xam ni mboolem yiw nekk fa am te jëm fu deeful fores yiw farlu war na la kay àddina kër la gu ñuy sàkkoo lu nekk ka am alaaxiraa di kërug pay jëf ju yiw du fa doy te doonte dundu nga junni at di jaamu bu wér du tax bu ñuy faye ngay naw pay ga luy pexe ey ngay dund loo xam ni lii nag xaaju koo jige sax te sànk ci at yu takkoo takku yàlla na nga yey yow yàlla boo farle yoo sax yàlla yàlla na la faf yërëm yërëm nu te may nu doy lu wëlli su lay dëkkal ci moytu te dëkkeek farlu waxatoo jot tey daw ku sàggan akuk càggan di fonk sa tey sa tey ju ñëw def ko niw sas bay ko mbay mu rafet mu sell moo xam ni moo gën bay mu nit masa bay saxal ci tuub ak xalam sang mooy di wéet ak muñ te xam ni kuy fay jëf say jëf lalay xalafay saxal ci tuub ak xalam sang mooy di wéet ak muñ te xam ni kuy fay jëf say jëf lalay xalafay na lépp nangu sunuy mbir jub sunuy pexe jub naataange ñëw faw bii rek biti dëkk fi nun walloonu wërsëg wu suuxal aajo yépp wu lew wu yaa lewet sedd mboolem xol yi guy yëti ren tàbbil ngërëm tàbbi taw féex ak tiraanga nu for tàbbik cofeel ak nga ñaay ak fan wu gudd wu gën barkeeku yiw yal na takk ak jàmm tekk fi nun te wàcc faw wi fi nun naatal mu dëkk fi nun na dil nu yëkkal nu taajal daw yu tedd fi nun ni cas mbégum ñépp faw ak say ngërëm ni nu foox wàccee li xéewal yu dul jeex ak njariñ yu ñu naw yu ñépp xañ may nu faw doy lu wëlli ci seex tonil niwug lu amul niw jox nu faw wu nu am sunu diw ak sunu mbaanig boole yóbbu ni ciix bégal mu nun ñépp yaa yor mbég te yaa mën a jox nit mbég fabal mbégi mbég yuy wéy di wéyit ni nu foox neexal fi ñépp te neexal ñépp dàq fi nun mboolem lu neex ak lu sedd xol saxal mu ci nguur wutil nu mboolem lu nit ñiy dox di bëgg ka wut ba gis ko yet nu ko nuy yokkoo ka am lu nu wóor tawal nu taw bu ñu roofug mucc roppi ca lor bu dul sewet bu ñu taw féexal notal nu kajoor bësal nu waa bawal ak waa fépp bés gu rafet ñuy sëgg faw fi nun muy sant kay notu góor walal saayi gi te muñ bul jéema wal gu ko moy kuy jéema jàpp ayug jaambur di wal du ko man toggal ba sottal ku sottal sotti maa la ko wax dugub ju ñor xomm góob ak dagg rekk ca gën nawet dafay wàcc yeex a gaaw a cay xala am lu man di am wàcc am cay mii misaalaka jam sa njaadagaanum nawet bu yeex a wàcc bu jub buy tax sa mbir ak mbirum ko yéena jàmm yéwén sañoo dagaanum nawet boo xam ni bii du sewét nawet bu lépp ñoree ab taw da koy taxa bon ku xam dugub ci nawet ak gerte rekk mu doy ku xam lu doy na ko doy loo gan du yokkalu gan nawet bu wàccam jotee faf wàcc rekk ca gën nawet bu cang rekk a bon yeewul soreeki xaram sunuy nawet yépp biir ak biti yal nañu jub te mucc faw ci gooy ak cang ñu boole nutin ñu ñépp yal na sunu ay ak ayuk ku nu saf rafet yéen sell jub saf sàpp yàgg sakkan te yal na ñépp ni ñokket wàcc seeni barab ñëw faf nu walle sunu ay dëkk faw fi nun fu nekk yal na fa ndimmal buur a jëm si ci nun te fekk ndimmal fi nun yuy dàkku ay fegi fen yal na njariñ buur a gépp wet ni xëpp fi nun sax dàkk dàkk fi nun lii yàlla daala ko man addina moo di nawet nun ñépp yal na nu am nawet bu tànd bu nangoo nangu tey sunu muur addina moo di nawet nun ñépp yal na nu am nawet bu tànd bu nangoo nangu tey sunu muur barke di dem àjjana yi firdawsi yal na nu am nun ñépp barke bu dootul dañ ba dëkk ci nguur bu way ko gëm yàlla gëm yonen ba wàcc lu bon nun ñépp yal na nu di kàngam yi xëy defi buur ka yokku moo di ka yokku jub te yokku ngërëm nun ñépp yal na nu sax ci yokku faw bu wóor ka dëddu moo di ka dëddu mooy te jublu ndigal nun ñépp yal na nu sax ci dëddu faw di nuur koomum njariñ moo di cantu yàlla yal na nu am koomum njariñ faw muy fekk lor te lëf du ca xuur ka tedd moo di kadul mooy mukk yal na nu am nun ñépp tedd nga jël ndam biti jël ko ca biir ka yàlla rus moo di kay rus yàlla yal na nu rus ñun ñépp yàlla mu rus noo rus ba faf di nu wiir ka topp yàlla amul yar dëgg yàlla na nu am ñun ñépp yar bu rafet buy feg lu bon fegu toor kay sant moo rafetum xel dëgg yàlla na nu am ñun ñépp xel mu rafet muy yéemu nit fa kajoor kay nëbbu nit ñépp am ak yeewu yàlla na nu def ku yeewu jar ci gépp wet di jàpp ka fiir ka yàlla àndala jël ndam rikk yàlla ñëwal ànd ak nu nag képp koo àndal te dolli nu muur daqal sunu dig te jañ koo jañ mu wéy ca kanam te def nu ñuy dolli koo kay jëm kanam li kanam daqal sunu dig te jañ koo jañ mu wéy ca kanam te def nu ñuy dolli koo kay jëm kanam li kanam yokkal sunu dig te jañ koo jañ mu wéy ca kanam kuy bañ nu jëm ca kanam noppal ko jël ba kanam mboolem ku nuy bége biir ak biti yal nañu faf jañub digam ca kanam naatal ko yokku digam mboolem ku nuy buuxa kay tas déeg yal na ko jañ cim kan mu gantal ñu bay bàmmeelam ak wanagam ku bañ ñu ruural ko day dollim ñagam ba mu tal te xupp kuy ruura kay sàqim ñagam ni ko am ñun ñépp yal na sunuy mbay nangu loola ti ren ñu jàpp mboolem lu nuy sàkkoo kewut ni nu am ñun ñépp yal na sunuy mbay nangu loola ti ren ñu jàpp mboolem lu nuy sàkkoo kewut ni nu am ñu nangu jël fawu biir ak biti sant bu wér ñu faf nu dolli ci gépp wet nu xëy di gërëm alhamdulillahi dolli cant daala nu war may yaa ngi ñëw dajaloo ni béy fi nun ni goram yii ñëw na yi ngay fexe ñëw jàmm rekk fi am bon bon yi mooy nanuy yàllaa gën ci nun ku ñu xam ganum njariñ masu fee jóg mukk dootu fi jóg nituk sabab masu fee am mukk dootu fi am yu bon yi kenn xamul ak mboolem yu bon yi ñu xam yàllaa nu féewale nuy féewoo ka mooy fu ñu jëm ngërëm ci kaw ngërëm ak tuubug tawat lanu fas yéene saxal tey fa boo kay jëm kanam li kanam doo def lu dul noona biir ak biti loo mën a def muy noona naa la ko wax kuy sikki sam noona doo def lu dul noona biir ak biti loo mën a def muy noona naa la ko wax kuy sikki sam noona yaa xam lu wér yaa ko am yow rekk yaa ko manit te yaa ko sañ loo deful accam dadul noona tuubay la war ku la moy santay la war ci sa jëf aayoo añaanoo te siisoo kenn it moona yow loo dogal dana am bis lépp loo dogalul lu yàgg-yàgg du am ak dëgg saw yoona rafet ci yow njort rekkay mbir ci loo mën a def jortu yiw ak jëfi yiw baaxub ña baaxoona doo def lu bon mukk doo seetaanu ay dinu dal xiinal ngërëm dotti gépp cant saw xiina xiinal mu xiinu nga neel ak barke xitti ci nun ba ñépp bég faw bay wax mbég yi rabboona yaafal ña lay moye kay moy loo ka sikka ka bañ moo tax ñi lay sopp seenu cant gëndoona saañal ma bën bëni lor sàññal ma bën bën yiw xëy noo ki cant yu rëy yoo xam ni déggoona xëy noo ki xam-xam yu mel ni waame feese njariñ dikkal saxal yiw suuxal saañu ak suuna jañal nu mboolem lu nuy musloo ka bañ mu ni mes ñoddil nu mboolem lu neefaa lii la neexoona fayal nu bor bu nu yor doylul nu wëlli si bor dàkkul nu bépp mooy ak koo xam ni sam noona réeréy waral nit a bon réeréy waral nit a mer ku saw yaram maxe say gët suulu doota la mer réeréy waral nit a bon réeréy waral nit a mer ku saw yaram maxe say gët suulu doota la mer ku nekk cim pax ba suuf ak bant bokk la war nga xam ni lépp lu dee faamer mu ñëy la ca war wéetaayu àddina ji ngay gis du lor bariwul wéetaayu laaxira rekk kay lor te moo gën a tar sëriñ bi dem na boroomam des fi yàlla na nu may lu gën gënal nu gënal nit ñépp may gunu bir sëriñ bi dem na boroomam des fi yàlla na nu may lu gën gënal nu gënal nit ñépp may gunu bir loo xam ni lii bu fi nekkoon def ko faw ci nun yow yàlla def ko ci nun ñii def gu sell gu wér dem gii mu dem def ko muy ndolleen lu màgg ci nun dig yokku faw ci nun tey sàllu ndam wu nu far jagam gi may nu ci faw jag gu yéemu gu sax akuk jigéen yàlla faw ak jëf ju sell ju ñor xëy gii mu xëy ni nu mes fawit musal nu ci lëf lu saf lu dàq fi nun foppuk jur ak ñanu jur ubbil nu wënti yiw ak ndég yuy njariñ di bawoo yusuu xalu njula fappak mbay mu nangu mu ñor may nu tabak sellal ak xaalis bu lew bu lewet boo xam ni bii lu nu jox jox nit ñi muy niru ngar loo woo mu ñëw fawu koo wooyit mu ñëw ku la woo fawit nga ñëw wooye naa la yi wuyul ni jasar woonaa la man ci sa tur woo xam la ak ci sa tur woo xam lewul wuyu maa yow ngeen jikuy amu tur ñëwal te bul ànd akas lor àndal ak sa njariñ te dëkk faw wi fi nun nuy mucc faw ci lor ngay bég ci nun faw nuy bég faw faw ci yow ngay sant nuy sant dootoo mer te dootu nu mer am ne naan gëm dolli kootig wóolu it bun lor jigéen it teggi wéy dox til fi nun am leen am gëm dolli koo tig wóolu it bun lor jigéen it teggi wéy dox til fi nun yàllaa nu dàkkul tiis ak kiy lor jëkk tey te ku yàlla dàkkul lor asal gistil lu bon ak cant daa la nu war gu ànd ak aw ndigal ak tuuba kuk sellal te takkoo jëf ju gën ku ñu faggulum mucc ak njariñ day sante xol ak lan nañam teg cay cëram gii cant gën aajootuma am lëf lu dul kàttan gu may sante ka jaamoo yàlla lii laa bëgg man te amu lu may sàkkooti it ndare ay ngërëm ak yàgg duniyaa ndaxte saa jëf yi sa kan sama xol bi soppul tey lu dul ak jëm kanam ak am la mboolem xej yàlla ya am ci kun yow ban ba may noote njariñ yuy lor niwul ak mbir mu jub ak xol bu sedd ak gudd fan fam naa samay mbir ak sama jur jox la des wuutal ma say ngërëm ak sa bopp ak sa yéwén fam naa samay mbir ak sama jur jox la des wuutal ma say ngërëm ak sa bopp ak sa yéwén bàyyi naa samay bokkit ca mbaakol ñëw fi yow ngir bëgg sa cant ak sa jaajëf ak i galan tey nag sa gan laa sa murit laa maa ngi nii yaa dàq gan mboolem ku ne faa mën na gan fagul nu ngan goo xam ni moo gën gépp ngan tey ak ëllëg yaa gën sunuy waajur ci nun baaxal te bul gis mukk nit kuy bon di bon bay tax nga naa waa ji ma gis am til ngërëm baaxal te bul gis mukk nit kuy bon di bon bay tax nga naa waa ji ma gis am til ngërëm ngir yàlla kum jubloo jagal dal lay jagal moomoo mi jaamam ak yëfam ku mu jox ngaam danga gis ku jóg jiituy moroomam dellu bon gis waa ju bon xëy jiitu lii doy naa xalam doo xam ka ngay gën mbaa ka lay gën jëkk dee kuy dund yàllaa xam mbiram xam ak mu jëm ragalal te goo gis ne ko bul may fàtte kët lii laa la wax bul fàtte wax ji foofu jëm ragalal te koo fu gis nee ko bul may fàtte kët lii laa la wax bul fàtte wax ji foofu jëm farlul te bul sàggan te bul yeexew yiwit lub àll yaayaa boo ko sóoboo leemu yam bii kër du kër goo xam ni dan fiy sax di wéy